Les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous les likes, merci de vous les abonner, merci également gars de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. En bokk sénégalais, fait faut les maintenir 14 régions du Sénégal ak nouvel ngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital hôpital yi ci kër yi tudd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu yor ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam ne erreur judiciaire yi ñeneen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñuy dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continue. actualité de saison Avec intégration du côté Bayern de Munich mais aussi la relation que Sadio Mané entretient avec Pavard hein. Pavard aujourd'hui l'un des meilleurs amis de Sadio Mané du côté du Bayern de Munich également li nga euh, derby derby euh, supporters terrain bi 174 bakkan muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti ci doomu aadama ki xam ne nag mooy donc kii di Fiorentino Perez moom nag ah tontu na ki xam ne mooy Nasser na euh, dégg naa benn euh, président Paris Saint-Germain ne euh, waa Real dañoo ragal compétition mën na ko leen rek laa koy wax ne ko laaj ndax moom xam na dëggantaan Real de Madrid ki nga xam ne également mooy Tchouaméni Tchouaméni nee na nag le choix n'a pas été difficile tànn diggante Paris Saint-Germain ak Real nee nag Paris saint club bu mag a mag a mag la mais moom choix am da ko defoon bu yàgg te moo nekkoon dem fa n xam ne mooy Casa Blanca mené aujourd'hui avec le départ de Casemiro qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable Real de Madrid a été lay joué hein, donc 18h55 GMT contre Osasuna Real de Madrid pour euh, bu gagné mooy leaders leader du championnat ndax a amagul défaite ba légui ay victoire Tégalé donc euh, ñii di waa Barça pour l'instant ñoo nekk gum premier provisoirement ki nga xamné nak nag ngeen ko nii hein, donc nekkon di Paulo nekkon entraîneur wu euh, Marseille mom nak instant yi ni pour difficulté yu gui di am du côté de Séville nak dañ ko contacté mais mom né day baye trêve euh, mondiale bi maanaam fii ak mois de novembre il muy a jël décision jamono la di 554 apparitions pour Koke nek 54 apparitions pour Koke motax gaay koy rendre hommage ngeen gis ko avec euh, l'Atlético de Madrid euh, ñi nga xamné depuis 2012 2013 2012 2013 ba légui 100 buts ak 100 euh, passes décisives ngi ni gis ju Ronaldo Suarez Benzema Neymar hein, Müller De Bruyne Di Maria que Dimitri Payet qui dit donc Lionel Messi gars Lionel Messi actuellement il retrouve sa forme d'antan Lionel Messi qui dit actuellement qui actuellement il est le meilleur joueur au monde dem gis ngeen coup franc bi mu donc la poule daal mi ngi woné bopam bu baaxa baaxa baax pendant ça aussi Anthony mom tamit wax ci l'un des meilleurs joueurs du monde également moom Cristiano Ronaldo nee mom euh, mu Cristiano Ronaldo mom ci PlayStation la ko doon seetaan de jouer tay bu démé bo bokk ak moom euh, club day nek lo xam roy la ci mom te mi ngi koy conseil te moom 22 ans kese day ñaan yi jàng lu bëri ci ki xam moy ser set euh, xam ngeen na tay tay la derby mancunien ñëwé ah, donc Manchester United Manchester City li nak moy nek 11 de départ bu Manchester City ngeen gis ki nga donc moy donc ki di euh, donc tout euh, suite Erling Bro à Londres à la tête de de l'attaque euh, de Manchester City ni di Manchester United gis ngeen Cristiano Ronaldo ban la toogaat donc Anthony Sancho ah ñooy nekk ci ci kaw ah Eriksen Musiala Rashford ñoom ñoo nekk kaw Bruno Fernandes nekk match boo xam derby bu nar neex la doon mais aussi ki nga xam donc Idrissa Gana Gueye Gana Gueye gis ngeen dem performance bu mu def bu mag bi mu def avec Everton bu mu ñëwee ba légui 3 matchs 2 victoires benn match nul ñu ñaan mu jikko parce que Everton gëjoon na am victoire sa ba ñëwee lañ am seen première victoire donc loolu nak nekk na nouvelle Qui Qui ki nga aussi Moïse Kaiser magnifique Mané Sadio Kaiser magnifique Mané la gars yi wax na ci li nga xam ne jëm ci situation au du côté du Bayern de Munich nee na ah donc adaptation bi xaw metti mais ça va ça se passe bien Mingi retrouver forme petit à petit mingi adapter adapté wu parce que nee 6 ans la def nga xam mooy Liverpool club bu mag mu def fa loo xam ne lu jéggi dayoo la donc ñëw bien ci beneen championnat beneen style euh, ñëw rek adapté wu dina xaw a metti mais nee mingi retrouver ay sensations et que mingi ngi euh, sentir li nga xam ne donc niveau am di ñëwaat moom nga xam depuis quelques matchs dañu ko ci côté gauche bi ki nga xam Julian Nagelsmann ah wax na ko ne Sadio Mané ah, il a repris de la confiance avec l'équipe nationale du Sénégal deux matchs yu dako jouer ko juraatoon postam jël ki nga xam ne a Musiala def ko faux neuf en tout cas Sadio Mané mom li ñu bëgg rek moy qu'il s'épanouit et aujourd'hui Sadio Mané également am na relation yu rafet rafet ak joueur Bayern mais notamment avec Pavard parce que gis nañ match bi ci euh, coulisses yi ni Pavard teewoo waxtana mom moom xam rek gën ko encouragé par rapport li nga xam moy match bi parce que Sadio Mané musta woon google Allianz Arena gis ngeen li avant match bi di commencer la et aussi après le match ba Sadio Mané dugalee aussi gis ngeen Pavard mu ci mom donc euh, Pavard les Français en tout cas ah, donc comme communauté francophone bi ak Sadio Mané c'est autre chose mais yamul fofu parce que Sadio Mané a mis beaucoup de gens qui bi nga xamné aussi hein ah, mom nek na ko xamné d'habitude c'est quelqu'un de très fermé gis nañu relation mais aussi matisse de Ligt moom très proche de Sadio Kalidou Mané Mané plutôt pour wone ne Sadio Mané c'est quelqu'un de très euh, donc bon à vivre ko xamné il est ouvert ko xamné aussi un véritable professionnel moo tax gars yi gars c'était les informations que loolu dana dina annoncé domaine ak beneen interview bu ñu def ak ki nga xam Abdoulaye donc nek ci wàllum terrain infrastructure yi di ngeen dégg gars yi ay yoo xam exclusivité par rapport ak njuuj njaaj yi nekk ci nga xam terrain yi nekk ci communauté commune plutôt ak aussi li nga xam ne mooy gré à gré bi am ci fédération bi suivre demain première partie bi deuxième partie également bu leen ko raté Bonjour, euh, moi je m'appelle euh, Abdoulaye je suis le directeur général de Toposet Group donc je euh, suis chaîne de sport TV donc invité et puis bientôt.